أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey nu toll ci suura al an'am bi iznillahi tabaraka wa taala tey ñuy jël juróom benni aaya aaya 40 41 42 43 44 45 juróomi aaya yi nekk sunu kanam sunu boroom jalla jalaaluhu mu ngi nu ciy jàngal juróomi mbir juróomi mbir yooyu bi ci njëkk mooy min garibi ahwaali l insaan al musrik annahu fi xaali shidda al xaqiqiya yad'u llaha wahdahu wala yad'u ma'ahu al aliha al batila danañ jàng tey ci aay yi nekk sunu kanam yàlla dinu won mbir mu yéeme ci mbirum doomu aadama doomu aadama bi nga xam ne bokkaale kat la borom bi tabaraka wa taala mu ngi nuy won mbirum bokkaale kat nit ki nga xam ne gëmul yàlla day bokkaale mushrik la borom bi dinu won ay mbiram li ci yéeme mu ne waajoo yi nga xam ne bokkaalekat la annahu fi ala shidda ci jamono tartar bu dëgër boo xam ne leer na li li tartar la da ngay gis yaddu ullaha wahdahu yàlla rek lay woo day bàyyi li mu gëmoon bàyyi bokkaale yi mu doon def bàyyi ñi mu yaakaaroon bàyyi ñi mu wóolu woon bàyyi ñi mu bàyyi woon xel ne ñii ñoom la fële la leen di sànni su ko defee lu muy wax yàlla rek tabaraka wa taala lay woo moo tax mu ne li yéeme ci mbirum doomu aadama ba nga xam ne bokkaalekat la ci jamonoy tartar sunu borom subhanahu wa taala dong lay woo loolu yàlla wax na ko wa iza rakibu fil fulka daawu llah muxlisina lahu din fa lamma najjaahum ila al bar iza hum yushrikuun loolu mbirum doomu aadama yépp la su yombee ñu bokkaale yàlla su mettee ba dara desu fi rek nga dégg ñu ne ñëpp ne yàlla rek a fi des waaw fi mu nekk nii kay bàyyi nañ koog boromam fi mu nekk nii kay fi mu nekk nii kay mu ne wala yad'u ma'ahu al aliha al batila ci jamono tar tartar boobu jamono mettit boobu jamono feebar boobu jamono ñàkk boobu jamono coono boobu bokkaalekat bi yàlla kese lay woo parce que xam ne ne fii dëgg-dëgg ñii mu yaakaar munuñ ci dara feebar bi mënuñu ko faj aajo bi mënuñu ko faj tolof tolof yi mënuñu ko dindi jafe-jafe yi dara lañ ci mënut su boobaa nag ñu jox yàlla mbir mi amma bu fekkee nag dem nañ léegi nag ci yomb yomb arraxa wal aafiya ak jàmm ñu woo keneen ku dul yàlla allahu akbar ñu commencé di génne reewande yi ngay dégg waaw bokkaale yàlla ku réew rek moo koy def ku réew ku xamul boroomam rek mooy bokkaale yàlla te li doy waar ci bokkaalekat yi dañuy dañuy leer ne lii lii ñuy tuumaal kii munu ko defu ko mais ñu ko koy jox wala ñu ko koy wax yow yaa koy def yow yaa ko mën te leer na leen ne ñoom ñii toog waaw benn waay otoom dafa këpp mu mucc mu ñëw fekk jamono tàngaay ñu tegal kilifa gi benn fauteuil ci buntu kër gi mu toog mu seen ko rek di yuux di ràmba yegsi nekk oto bi mu këppee yow laa gis nga téye oto bi kooku loolu la ko waroon wax man kay bougé wu ma sama kër bay téye oto mënumaa téye sax welo buy daanu waxuma laa ak oto loolu la ko waroon wax waaye mu mu sëgg bàyyi affaire bi jàll moom moomu ñu ne woon dafa téye oto bi mu dugg oto otom accident tànk bi képp mu da- ñu dagg tànk bi tey benn tànk la fii may wax ak ci jàkka ji am na ñu ko fi xam looloo tax sax jàkka ji ñu ko indi woon pour mu jiite dañ ko faa mujjee jële parce que waa jàkka ji dañu ne handicapé du leen jiite te moom nee woon nañ moom moo téye oto bu këpp ku téye oto bu këpp lu tax téye oto bu dagg sànk nit ñi dañu war a bàyyi xel ne yàlla mooy yàlla yàlla kenn waru ko dendale kenn wala lenn yàlla li muy def doomu aadama tuuti na pour def ko yàlla ay mën-mënam ak kattanam tuuti na ci doomu aadama alxuraan moo nu wax a antum ashaddu xalqan ami sama na yéen yàlla ne na yéen yéen yéen yéen doomu aadama yéen du ngeen xool seen bopp xanaa xam leen li ma bind yéen a ci gën a doyeeti xanaa gis leen asamaan ngeen defe ne yéen ak asamaan bu ñu leen doon gam-gamle a antum ashaddu xalqan ami sama lan la ñuy tont asama بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دهاها والأرض بعد ذلك دها gis nga yàlla li mu wax asamaan yi loolu xëju ci doomu aadama kon bokkaalekat ay mbiram dafa yéeme ñaareel bi mooy bayaanu sunanullahi taala fi ihlaaki umam danañ jàng tey sunu borom jalla jalaaluhu mu nuy leeralal ni mu alage yeneen xeet yi nu fi jiitu woon ba ñu lànkalee yàlla sunu borom subhanahu wa taala dalee na alak ñun tamit bu ñu lànkee rek yàlla alak ñu indi ñeneen loolu mooy sunanullah fil ard yàlla moom moom àddina bi ñi fi nekk moom mooy seen borom moo leen moom su leen santee ñu lànk da leen fiy jële indi ñeneen wa in tatawallaw yastabdil qawman gayrakum summa la takunu amsalakum su ngeen lànkee rek ma indi ñeneen waaw loolu bu yeboo mu leer ci ñun sunu borom subhanahu wa taala daf nuy wan ne yeneen xeet yi ni mu leen alagee loolu pour ñun ñu jàng ci ne bu ñu lànkale yàlla daf nuy alag ñetteel mooy iza raayta al umam qad fasaqat an amri rabbiha wa rasu wa rasulihi soo gisee yeneen xeet yi kàccoore ci seeni mbiru borom ak seeni mburu mbiri yonent fa uqibat yàlla mbugal leen falam tattais bil uquba ñun ñi waaru wuñu ci mbugal yooyu ñu continuer ca ñooñu la ñu doon def musiba am na alxuraan saa yu ñu jàngee yàlla day wax xeetu muhammad bàyyi leen xel ci yeneen xeet yi la ñu defoon ma mbugal leen pour ngeen mooy ta nikku ba yàlla alagee Moussa ci ndox yàlla di ñu wax ni mu alagee Moussa ba ay jeex lan la wax inna fi dalika la ibratan li man yaxsha ah lii kat kéemtaan a ngi ci pour ku ragal yàlla nga gis ne firawna firawna firawna firawna bi ko yàlla alagee ba pare daf ñu wax ne xool leen gis ngeen ni ma ko mbugalee pour lan pour ñu bàyyi xel balaa ñuy def li Firawna dafa ñuy mbugal mboolem yàlla ñi mu mbugal ci àdduna su aayee di jeex yàlla dafa ñuy wax ne nii rek la de waaye yàlla tamit ñi mu fay ci àdduna ñi mu doon liggéeyloo ba mu leen fayee ba pare dafa ne inna kazalika najzil muhsinin nii laay fayee aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo rafetal kon xeet yi bu ñu defee bakkaar mooy seen ndigalu boroom sunu boroom subhanahu wa taala mbugal leen la ca war a judd mooy ñeneen ñañ koy nettali ñu waaroo ci wala buñ defee bakkaar yàlla bàyyi leen ak bakkaar bi bañ leen a mbugal wastamarrat ala fisqiha ñu continuer ca kàccoore gi yàlla ubbi seen wërsëg wa basata allahu taala laha fi rizqi yàlla yaatal ngay mooy yàlla yàlla may la wér ngay kàccoore yàlla yokk kàttan bi ngay def lu la neex yàlla bàyyi la bu nit ñi di jaamu yàlla nga tëdd ba heure bu la neex yàlla bàyyi la rek yëgal ne loolu stratégie la bu la yàlla lalal pour alag la ñu bari ci ñàkk xel da ngay dégg ñu ne yéeféer yi de du ñu jaamu yàlla te ñoo ñu ëpp alal léeg-léeg nga dégg ku wax loolu diw de du def dara te moo ñu ëppalal bu doon bu doon jaamu yàlla mooy maye kon diw du am ndax diw du jaamu yàlla te ma nga ne am lu ne gàññ du jeex stratégie la bu ko yàlla lalalal rek pour du tuub mukk ah sanastadrijuhum min haysu la yaalamuun wa umli lahum inna kaydi matin sunu borom wax na ci suratu taariq innahum yakiduuna kaydan wa akidu kaydan fa mahilil kafirin allahu akbar yàlla nee na bàyyi leen rek temm leen rek bàyyi leen ñu def leen neex ay stratégie rek yu ma leen tegal la inna allaha la yumli al abd hatta iza axazahu la yuflih yàlla day ndànku jaam yàlla da koy bàyyi mu nekk ci lu ko neex ci diggu dooleem di tëb di dal waaye bu ko yàlla nee teeb du rëcc day xam ne keroog am na ku ko téye ñeenteel mooy suumu zulm mooy xilaakul zalimin tooñaange tooñ musiba bi ci nekk nit kuy tooñ fi ngay mujj du baax góor guy tooñ fi ngay mujj du baax jigéen juy tooñ buur guy tooñ ku am doole kuy tooñ ku mu mën a doon ngay tooñ yëgal ne fi ngay mujj mooy da ngay alku soo tuubul moo tax tooñ baaxul ndax ki nga tooñ du fàtte mukk tooñaange gi te da ngay dooñ tooñ dem tëdd ni nelaw ki nga tooñ dem jàkkaarloog boroomam di ko ñaan ci minhajul muslim ci chapitre bi cheikh bi bind di tere tooñ an nahi ani zulmi bu ngeen toppee téere bi di ko li di ngeen fa gis xissa benn waaye boo xam ne bu doon wax yaa man taraani laa tasliman na ahada te yow mi may gis bul tooñati kenn de yaa man yaraani laa tasliman na ahada te yow mi may xool yow mi may gis yow mi ma jàkkaarloo bul tooñati kenn nettali woon nañu xissa ba ci benn xutba jumaa waajooju lan moo tax mu mujj di wër mbedd yi naan yéen ñi ma gis bu leen tooñati tooñ baaxul mbokk yi tooñ mujjëm mooy alkande sunu borom moo fi ëpp doole te tooñut moo tax mu ne dama araamal tooñ ci sama bopp ma def ko seen diggante muy lu araam bu leen tooñante juróomeel mooy irsaad ila hamdillahi taala inda nihayati kulli amal danañ jàng tey aay yi nekk sunu kanam def ñu orienté di ñu jubanti saa yi ñu duggee ci mbir résultat ba fu muy jeexee ñu sant sunu borom subhanahu wa taala ñaatoon lañ jàng yàlla mu ne wa ma bikum min ni'ma fa min allah bépp xéewal bu ngeen mën a am ngeen yëg ngeen bañ a yëg ngeen gis ko ngeen bañ ko gis xéewal boobu ci yàlla la bàyyeekoo wa ma bikum min ni'ma nag lu ngeen mën a yor wa ma bikum min ni'ma fa min allah bàyyiwakul ci ma sàmba bàyyiwakul ci ma demb yàlla nee na fan la bàyyee ko ci man te xéewal yooyu bu ngeen ko doon wàññi du ngeen ko jot wa in tawdu ni'matallahi mbokk yi ñun ñu toog fii ci biir jàkka ci xéewalu bët kan moo ci mën a fay yàlla bët seen bët yi di xool ah benn bët bi rek kan moo ko mën a fay yàlla waxuma la ak ñaar yi suñ boole woon ñaar yi ñu ne la bés bu nekk boo xoolee ba ngoon bala ngay tëdd da ngay fay facture kon da ngay xëy rek gëmm ñu ne la la nga ne du doy na maa doon xool xooltuma wala nopp yi li ñuy dégg kan ci ñun mooy ku mën a fay yàlla kan ci ñun moo mën a sant yàlla ci nopp yi li ñuy dégg kan ci ñun ngelaw li ngay nooy kan ci ñun moo si mën a sant yàlla sooy wax yenn saa yi ci mbirum neema xéewal nit ñi dañu yaakaar ne xéewal mooy am étage yu bëri ay kër ay oto ay ay ay ay dañuy fàtte ndeysaan xoolal lii ñu ma wax léegi nii dañuy fàtte bët ah xool li ngay xoole amoo benn problème dañ nii rek nga gis nga ngay gis loo bëgg a xool couleur boo bëgg nu mu neexee affaire boo gis mu leer ci yow neex téere boo bëgg a jàng loo bëgg a liir lan moo ko def mu neex noo ci yow parce que yaa ngi koy gis borom xam-xam yi nee na ñi am bët xamuñu xéewalu bët xam nga ñan ñoo xam xéewalu bët ah ñi ko ñàkk ndeysaan ndeysaan dañu dañ dem benn kër gane gane benn borom xam-xam ñuy añ ñu tibb benn ñaar ñett ñett ñeent dank juróom kenn ci gan yi daan ne ndeysaan ceeb bi neex na de rek góor gi ñu doon añal daal di yuux daal daanu ci suuf ñu yëkkati ko ndeysaan mu toog ñu ne ko góor gi lan la mu ne ñi ko amul nag sama xel dafa dem ci ñu ko amul waaw gis nga mbir mi yow li tax mu neex ci yow da nga ko am wallahi soo ko amul woon du neex li tax nopp neex mooy dañ ko am dégg li tax gémmiñ neex dañ ko am di wax ndeysaan li tax bët yi neex dangay gis koo xam ne sa moroom la mu ngi toilette mel na yow am li nga am lépp ba pare ndeysaan yor bant di làmbatu ah la nga gis ku mel na yow am lépp waaye yaa ngi gis ndeysaan du dégg ni lay def nii wala du wax wala nga gis ko mu toilette ba pare ndeysaan di raam ci suuf ak yére yi sa yaram daw wala nga gis ko mu toilette ba pare ndeysaan amul loxo hmm? kon li ñu war a sante yàlla ci ay xéewal yu ñu war a def yu ñu am kenn xamul nu mu toll waxuma la dara sax waaye lépp lu ñu mën a def bañ ciy dugg dañ ko war a tàmbali ci tur yàlla bu jeexee ñu sant sunu borom mbokk yi waaw lépp dañ cee war a sant sunu borom subhanahu wa taala ñu xam ne yàlla rek la du kenn nag yenn saa yi sax nga dégg pas-pas yu yàqu yi liggéeyu ndey añub doom wala kii baayam a ko liggéey wala kii yaayam a ko liggéey wala kii borom doole la wala moo ko lépp dañ ko war a delloo yàlla doomu aadama amul lu mu fi def da ngaa kër kër yi rek yàlla moo sottil yow kër kër yi rek nga def sunu borom subhanahu wa taala moom moo ko sottil kon mbokki jullit yi nanu yëg ne dañoo war a sant yàlla tabaraka wa taala bépp jëf bu ñu jëf bépp mbir bu nu dugg bu jeexee nañu sant yàlla bépp mbir nag wa aqibatu kullu amrin fin wu bépp jëf nañu sant yàlla ginnaaw boo lekkee ba pare santal yàlla boo duggee toilette ba pare santal yàlla boo wàcc xëyee ba wàcc santal yàlla boo yéegee ba wàcc santal yàlla lépp loo def santal yàlla jamono ji ngay sant yàlla ci li nga def ba pare di ko sant am na koo xam ne ndeysaan moom ba mu defee ba pare fa la pare ah am na ñoo xëy ñoo xam ne xëy nañ yow bi nga xëyee toog wàcc di sant yàlla am na ñu wàcc ñoo wàcc ñu am ñoo xam ne bi ñu nee ci kër gi au revoir accessoire nekk duñ ñëw am ñoo xam dañoo tukki ñibbisi waatuñ kon yow boo ñibbisee am ñoo xam dañoo yéegoon ñu leen di xaar ñu wàcc wàccuñ wala kon nag bépp mbir bu ñu def ci fin ba dañu war a sant sunu borom subhanahu wa taala juróomi aay yooyu la ñuy jël tey ma bàyyi cheikh bi insha allah mu jàngal ñu ko qul araay
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين
allah yubarik fiik barakallahu fiik yal na yàlla fay la yiw mbokk yi sunu boroom subhanahu wa taala mu ne qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ma zaala asiyaq fi talabi hidayati ulaika almushrikun ay ba tey dañul di joxe ay orientation pour jubal gaa yooyu nga xam ne ay bokkaalekat lañ yuy bokkaale seen boroom ak ay xërëm wala ay xeer wala ay nit wala ay weñ wala wala wala wala wala ay dañul di leen joxoñ bi di leen jàmbaaraam mu ne qul yaa rasulana waxal yow sama yonent yow sama ndaw li nga xam ne maa la tànn yónni la waxal ak ulaayika ñii nga xam ne yaadiluna ñoom ñoo jeng di bokkaale seen boroom bil asnaami ci ay xërëm ak leneen laaj leen ne leen araaytakum xamal leen ma yéen gaa yi in ataakum adabullah bis bu leen mbugalam yàlla dikkali aw atatkum saa wala bés penc betti leen ngeen ne këcc rek ngeen gis tey la yowmal qiyaam waaw su boobaa ñaar yi bu leen dikkalee ah mbugalum yàlla ne karab seen kanam wala ngeen jekk yowmal qiyaam ne karab tey ñaar yi bu ci mën a nekk a gayra allahi tad'un keneen ku dul yàlla ngeen di woo wala yàlla ngeen di woo laajal gaa yi rek laaj leen bu leen yàlla tegee métit kan la ñuy woo yàlla rek la gaa yi di woo wallahi li gaa yi di bokkaale bokkaale bokkaale bokkaale bokkaale yépp su mbiri ne kërit seen kanam metti jafe da ngay gis ñu delluwaat ci yàlla tabaraka wa taala moo tax mu laaj leen ne leen axbiruuni araaytakum xamal leen ma in ataakum adabullah bis bu leen mbugalam yàlla dikkalee aw atatkumu saa wala bis pénc ñëwal leen gayra allahi tad'un ndax keneen ku dul yàlla ngeen di woo in kuntum saadiqina bu fekkee wax ngeen dëgg wax leen rek da ngay gis gaa yi kan la ñuy woo sunu borom subhanahu wa taala dong dong la ñuy woo du ñu woo keneen allahu akbar ndax xam nañ ne moom yàlla mooy borom jàmm ci moom yàlla mooy borom tawfiix mooy borom kun fayakoon mooy ki mën moo tax moom dong la ñuy woo duñu dañuy fàtte keroog lañ doon bokkaale wallaay bu fekkee wax ngeen dëgg wax leen rek waaw da ngay gis waa ju feebar ñëbbu ko hôpitaux yépp mënuñ ci dara ñu daw ci xërëm yépp mënuñ ci dara ñu ñëw teg ko ci kër gi soo ne gaa yi waaw ñu ne léegi yàllaa ci des gis nga li ñu bañoon fa ñu bañoon njëkke foofu la ñu mujjee mooy yàllaa ci des kanko de min nawima bangeji fof oɗo saha noon ko allah tan min paɗata hen balli wërtey mbir gis ngeen sunu borom mu ngi tontul boppam xam na nit ñi li ñu nekkee balli fi ne wërtey mbir iyaahu moom kot tad'una ngeen di woo fa yakshifu mu wuñji mu dindi ma tad'una ilayhi gis nga la ngeen ko doon soxlaa mu ñëw dindil leen ko feebar bi la mu wéral ko jafe-jafe yi la mu dindi ko coono yi la mu teggi ko mettit yi la mu indi jàmm bal li fi ne wóor tey mbir yéen ñi bokkaale yàlla xam ngeen ne su yàlla tegee mbir yu metti yi seen kaw iyaahu moom kenn ñi jàng arab dañuy leen ne maf'ul saa yu jiitu fi'lu lu muy tekki ah moom moom kenn la moom yàlla moom yaa ngeen iyyaka na'budu maf'ul bi moo jiitu fi'lu bi wa iyyaka mu ne wa iyyaaya fa'buduni gis nga moom kenn baat yooyu saa yu jiitoo lu muy tekki moom yàlla kese la gis nga yàlla xam na ne ñiy bokkaale lu ñu bokkaale bokkaale bokkaale dañuy dugg seen néeg daal ne ah yàlla ah, xam naa ne sama waa ji mënul dara ndeke ndeke yow mbir mi yow mii la moo tax bokkaale baaxul su mettee rek nga teg ki nga doon woo nga woo yàlla da ngay gis ndaw si ëmb ñu takkal koy béjjén takkal koy xaaw takkal ko benn caas mu traversé biir bi ñu galan ko ko nii waaye mu dem hôpital affaire bi métti métti ñu tekki yëpp teg fee fu muy mujj yaa latif ay yaa latif mu nga fu muy mujj mooy yàlla ñëwal bul yónnee gis nga de yàlla ñëwal bul yónnee jigéen ñi bu ñu am doom loolu la ñuy wax yàlla ñëwal bul yónnee kon yàlla yónnee sax ñoom wóoluwuñ ko yàlla rek na ñëw ah kon kay bokkaale baaxut waaw mu nga ndax bokkaale musiba la mbokk yi moo tax yàlla mu ne balli wërtey mbir iyaahu moom kenn kot tad'uuna moom ngeen di woo moom ngeen di ñaan ndeysaan su boobaa nag moom yàlla lu muy def fa yakshif mu daal di wuññi wuññi mooy dindi yazil wa yub'id wa yunji mu dindi wala mu soril wala mu sobe ndeysaan kooku nga xam ne moom moo woo yàlla fa yakshifu mu dindi wala mu soril wala mu musal ma tad'una ilayhi la ngeen ko doon doyee di ko woo naan ko yow yàlla insha su ko seet su ko neexee bu ko neexee ngeen woo ko rek mu daal di wuyu léegi mu daal di dindi affaire bi ya allah ya allah ya allah mu ne labbayka ya abdi te nit ñi bu ñu xamoon ci am ay jafe-jafe woo yàlla li ci nekk ci ay xéewal allahu akbar yàlla nee na xool ku ma woo ma wuyu la wa ida saalaka ibadi anni fa inni baid ah fa inni qarib lan mooy baatu qarib dama laa jege yàlla neex na ci alquran huwa aqrabu ilaykum min hablil warid xoola diggante kër bi buum yi ci nekk correspond ak bakkan bi ngay xëcc ci ngelaw bi muy dugg ci kër gi di ko jox poumon yi di ko jox oxygène yàlla nee na maa la ko gën a ji maa la ko gën a jege kon noo fi bàyyee yàlla di woo keneen yàlla nee na maa la gën a jege sa bopp da ngay nekk ak nit nga koy woo du la wuyu xam nga lu tax ñaar déggu la bàyyi wala xel yàlla nee na man ku ma woo ma wuyu ko wa iza sa'alaka ibadi anni la wax bu la jaam ñi laajee man yàlla fan laa nekk wax leen lan fa inni qarib yamu ci mu ne wax leen ne man damaa jege mu noonu na yem foofu waaye mu ne ujibu daawata daa'i allahu akbar ujibu damay wuyu daawata daa'i wuyu woote aji yuuxu aji woote soo ma woowee rek ma wuyu la njaa ngeen histoire waa ji tukki woon jóge saam jëm yaman yor ak gëléemam ñëw ba ci àll bi fekk fa benn agresseur ndeke waa ji loolu mooy métier am ku fi jaar mu agressé la rey la jël li nga yor nan la lay def daf lay wax ne foo jëm nga ne ko fii laa jëm mu ne la yii yoon bi dafa gudd jaaral nii nga ne ko ah man de at yëpp fii laa jaar mu ne la kaay moon la yoon bu jege bi su la yóbbee yóbbu yóbbu yóbbu yóbbu ba mu xam ne nag léegi fi mu nekk ni saaye mu ray la jël sa alal jël sa gëléem am benn waay boo xam ne noonu la ko def mu ñëw ba ca sële bi yoon bi rek mu dajeeg waa ji ñu nuyonte mu ne waa ji foo jëm waa ji ne ko man dëkk sàngam mu ne ko ah yow lu tax ngay jaar yoon bi waa ji ne ko man fii laa tàmm jaar bi mu ne ko déedéet gis nga ginnaaw tóokóor bii fii boo ko jàddee ñaari yoon ñett rek gis dëkk fii moo gën a gaaw nan dem moom la yoon bu gaaw bi rek mu ànd ak waa ji ñu dox dox dox ba caag waa ji ne ko ah yow daa mel na sa yoon bi jegewut de mu ne mu ngi kët léegi ñu yegg ginnaaw montagne bi ñu dem ba caag rek waa ji commencé seen ay yaxu nit nit yi ñu rey seen yax yi weex tal ndax dañoo yàgg waa ji dem ba jaag gis ay gëléem yaxu gëléem ak ay yaxu fas ak aj na ko sawa yow sa yoon bi gudd na de mu ne ko eh noppil da nga am loo wax yow waaw bandi noonu lay def su la fexee la ba fexe bi sotti dootoo wax wax bu neex dootoo la wax wax bu neex ndax gisoo yax yi nga romb mu ne nga kay te bala ma lay bàyyi sa yax mujj foofu ba mu demee ne boo xam ne léegi moom jekku na waa ji mu ne waa ji waa ji ne ko doo jël gëléem gi ak bagage yi si nekk nga bàyyi ma ñibbi mu ne ko bagage yi kay moom ak gëléem gi moom maa ko moom te kay sa bopp léegi la ñu war a liggéeyanti yi kay moom ba ma ko moomee yàgg na waa ji ne ko léegi kon may ma ma julli ñaari ràkka ba mu ne ko mbir maa ngi sa loxo waa ji daal di tekki mbuus daal di jàpp daal di julli ñaari ràkka dernier sujud waa ji ne yaawa duud yaawa duud yaawa duud yaa zil arshi lmajid yaa faalun lima yurid asaluka biwajhika alladi la yuram wa bi mulkika alladi la yudam wa bi nuuri wajhika alladi yaa mugiis agisni yaa mugiis agisni yaa mugiis agisni waa ji waxee loolu rek ñu dégg benn baat bu ne bu ko rey waa ji mun na comme mu ne bu ko rey di gestu mu ne waay ma koy rey ngat mu jege waa ji rek baat bi gën a jege ne bu ko rey bi mu yëkkatee jaasi bi mu gis ponkal taxaw ci kanamam ne yow la ñuy wax bu ko rey mu siggi rek waa ji bitti ko loxo xam ngeen bitti loxo ah nga biti loxo am biir loxo ak biti loxo mooy nii waa ji biti ko loxo rek mu dali fële faatu dee mu fekk waa gi fi mu sujjóot mu yëkkati ko mu ne ko yàlla nee na am man yujibu lmuttara iza daa wa yuksifu suu yàlla nee na ana kan mooy wallu aji woote di dindi ay njàqare kan la mu ne ko yow la kan mu ne ko man malaayika la bi nga ñaanee sa ñaan gi malaaka yi ci asamaan yëpp dañoo sujjóot ci kanamu yàlla ku nekk di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla jox ndigal pour mu sauver la mu ne yàlla jox ma ndigal mu ne bi ma yàlla ne yow la damaa tiit ba première bu ko rey bi maa ngi ko waxee malaul aala deuxième bu ko rey bi maa ngi ko waxee fii ci septième asamaan bi troisième bu ko rey bi laa laa nekk fii ci suuf si kon kay nañ woo yàlla waaye nit ñi dañ leen a réeral ba duñu woo yàlla waaw déglu naa ci benn kaset benn sëriñ di nettali nee na seen kër mbindaan ma fa daan liggéey suy raxas kaas yi kaas bu daanoo mu ne subhanallah kaas ba toj bu kaas daanoo mu ne subhanallah kaas toj bu verre daanoo mu ne subhanallah verre toj mu gis waa kër gi bu kaas daanoo ñu ne diw rek kaas bi dara du nekk mu mu commencé gars yi ne ko ah da ngaa bàyyi subhanallah di ñëw ci ñun dégg nga loolu mooy lan loolu mooy bokkaale leen kon subhanallah moom moo ëpp yàlla ma diw moom moo ëpp subhanallah doole dafa la wax ci wax picc yooyu tey dañ koy wax ci dëkk bi yëpp waaw boo waxee nangam boo waxee nangam boo waxee nangam sa aajo faju yooyu mbiru bokkaale la jullit na woo yàlla wallahi tàmmal leen seen bopp woo yàlla ngeen xool waaw yàlla kenn du ko woo kenn du ko ñaan yonent bi nee na yàlla rus na jaam tàllal ko loxo ba pare yàlla bàyyi loxo yi noonu mu delloo ko dara du ci am yàlla rus na loolu kon nan woo yàlla mbokk jullit yi suñ borom nee na moom kenn ngeen di woo bu ko neexee mu régler problème bi wa tan saw na ma tushrikuun gis nga bu yàlla ñëwee ba rek la wala da ngeen di fàtte ñi ngeen doon woo moom kay dëgg dëgg yàlla kay yàlla kay amul morom illa yàlla gis nga da ngay dégg bokkaalekat bi doon bokkaale léegi ba mu demee ba mettit yàlla ñëw nag da ngay gis ndeysaan mu fàtte ki mu doon woo ñooñu sax ñoo tane waaye am na ci bandi yoo xam ne dañuy woo yàlla yàlla rek la seen problème ñu ne diw la waaw ñoo ñooy bandi yu mag yi nag dañuy woo yàlla laa wax yàlla rek la seen problème ñu ñu tuumaal diw ne diw la waaw ndeysaan allahu akbar allahu akbar yàlla mu ne wa tan saw na ngeen fàtte maa tushrikuuna ña ngeen ma daan bokkaale di ma dendaleeg ñoom xam ngeen ne man duma seen moroom borom bi nee na walaxat giñ naa ci sama màggaay li wóor tey mbir arsalnaa yónni naa ilaa umamin ci yeneen xeet yi min qablika li la fi jiitu woon ah man yàlla subhaanahu wa taala maay ki yónnee woon ci yeneen xeet yi nga xam ne ñoo la fi jiitu lan la yàlla yónnee woon rusulan min qablik ila umamihim ay ndaw fa amaruhum bil imaani wa tawhid ñu digal leen nañu gëm yàlla nañu kennal yàlla wal ibaada nañ ko jaamu fa kafaru wa asaw ñu daal di weddi yàlla daal di moy ba ñu weddee yàlla daal di koy moy fa axaza fa axaznaahum yàlla nee na ma jàpp leen jaj bil baasaa wa darra gis ne sunu borom ci mbaaxam su ko nit lànkalee wala weddi ko yàlla mën na laa mbugal ci saasa rek mu rey la ndax kattanam mën na ëpp na lool waaye xoolal yàlla déedéet daf lay teg ay jafe-jafe teg la ay natt pour nga tuub teg la ay feebar ndeysaan da ngay gis ñu bëree bëri ci nattu la ñu dellusee yàlla da leen teg nattu ñu tuub ñu yàlla teg leen ay feebar ñu dem ba xam ne dañuy dee ñuy ñaan di toroxlu ba yàlla wéral leen ñu tuub yàlla teg leen ñàkk ñu dem ba waaye yàlla delloo si waa leen ñu tuub moo tax ndeke jafe-jafe yi ak nattu yeeg problème yi du lenn lu dul dellu sil sa borom ndax boo amee jafe-jafe rek bul dem ci ma sàmba bul dem ci ma demba dellul dawal dawal léegi léegi léegi léegi delluwaatal rek ci sa borom commencé waatal da ngay gis léegi nattu yi daal teggeeku ndax yàlla nee na yeneen xeet yi ba ma yónnee ay yonent ñu weddi yonent ya fa axasnaahum man yàlla téye naa leen bil ba'sa yi ci ay jafe-jafe ay tartar al bu'sa al shada'id ah min al xurub wal amraad wa darra mooy addar man yàlla teg naa leen ay nattu ci ay xare teg leen ay feebar wa darra ak ay lor lan moo tax nag ma teg leen loolu lenn kese la mooy lan laallahum yatadarraun ngir ñu toroxlu delluwaat ci yàlla tabaraka wa taala yatazallaluun fi du'a xaadi'uun ngir ñu toroxlu tàllal yàlla seeni loxo wàññi nelaw guddi gi sujjóot sujjóot lu bari wàññi lekk bëccëg di woor woor lu bari ad-darra yatadarraun toroxluwaat ci yàlla yëkkatiwaat seen loxo ñaan seen borom waaw soo amee jafe-jafe yëkkatil yàlla say loxo soo amee njaboot gu doy waar yëkkatil yàlla say loxo soo amee soxna su doy waar yëkkatil yàlla sa loxo boo amee patron bu doy waar yëkkatil yàlla sa loxo soo amee oto buy paan bu dégg bëccëg yëkkatil yàlla say loxo boo amee fas booy buy lànk yëkkatil yàlla sa loxo boo amee tool boo xam ne boo ko yëkkatil yàlla sa loxo te darraun yàlla dafa bëgg a dégg jaam bi naan ay yow yàlla ay yow yàlla allahu in tarakta su'aalahu yaghdabu wa bani aadama hiina yusalu yaxdabu doomu aadama soo bàyyee ñaan yàlla yàlla dalay mere allahu in tarakta sualahu yaxdabu yàlla boo ko bàyyee ñaan day mer doomu aadama nag boo koy ñaan bisu nekk dalay mere sa papa sax bi la jur bisu nekk nga papa miin waay suba nga ni papa gis nga gis nga yow nag dangaa bëgg lu yomba am waaye dangaa xam ne nii la waaw gis nga yàlla nag loolu bu dakkee dalay mere moom kon yàlla ak doomu aadama du ñu benn kenn waru leen nattale sax yàlla soo ko bàyyee ñaan dalay mere doomu aadama boo koy ñaan bis bu nekk dalay mere yàlla boo ko dul ñaan bis bu nekk ci la lay mere kon yàlla dafa bëgg jaamam bi di ko toroxlu yatadarraun di toroxlu ah tey ji am na ñoo xam ne ni ñuy toroxloo ci yenn mbindeef bi bu ñu ko defoon ci yàlla am am na ñoo xam ne ni ñuy def laa ci nit ñi buñ ko defoon ci yàlla am billahi wallahi taala waaye seytaan moo dox seen digganteeg seen borom borom bi mu ne fa lawla is jaahum baasuna lan moo taxoon lu tere woon ba sama mbugal dikkalee leen ma teg leen ay nattu teg leen ay jafe-jafe teg leen ay feebar teg leen ay problème xiif mar lu taxoon bi jafe-jafe yooyu ñëw te dara wu ñu toroxlu comme xam nañ ne suñu toroxloo mbir yi dañ lan moo tax kon ba ma leen tegee ay natt toroxlu wuñ xam ngeen lu ko waral mu ne walakin waaye qasat qulubuhum xol yaa wow boroom xol bu wow bu ko yàlla tegee feebar xam nga lu muy wax waaw amul problème quoi léegi ma tane dara waaye yow dara laa wax day xeex ak yàlla bu ko yàlla tegee jafe-jafe noonu lay def du muñ day dem sàcc wala mu agressé ji wala mu rey ji ay nit te yàlla lu mu wax mooy bu ma la tegee nattu toroxlul gis nga muy aaya baa ngi ni fa lawla is jaahum baasuna lan moo tere woon ba nattu yi mbugal yi ba mu tegoo yatadarraw ñu toroxlu sànq ci kaw lan la wax ñee ba ñu toroxloo yëf ya dañ kon ñii lu tax bi mbir yi ñëwee toroxlu wuñu walakin qasat qulubuhum yàlla nee na dëgg dëgg dëgg dëgg lenn taxul lu dul xol yaa wow yemuñ ci xol yi wow waaye wa zayyana lahum seytaanu ma kaanu yamaluun seytaane moo taaral seeni mbir moo leen taaralal bakkaar yi dara ay conteneur rek waaye yow waaw da ngay naan sàngara yàlla teg la problème yow gars yi ne la taalal beneen taalal waaw da ngay dañu ne boo amee problème tuxal cigarette nga gis waa ji di tux rek bu taal mu beneen bu ba- bu jeex mu enchaîné waaw
toll ci def ko.
waaw toll ci def ko ba màggee bakku nga gis koo xam ne dafa am problème mun naanaat li gars yi di wax ci noonu nu mu tuddati Malik ibnu Dinar mu naan sàngara mandi ñëw di capter doom bi di ko sànni di capter benn doom bu jigéen boobu rek la am mu sànni capter sànni capter mu sànni gisul doom bi doom ji rëcc na ci dër bi tar dee mu ne ah damay naan yàlla di rey sama dooma billaay dina xam ne naanaguma nag loolu nag di da di naan naan ba du ma mën a taxaw nag waaye léegi loolu koo ko def ndeysaan mu dem naan ba mënatul taxaw kenn mënu ko téye nit ñi daal di koy jël sànni ko ci kaw lal bi mu mu nelaw guddi jot mu gént jahannama gént yowmal xiyaam benn jaan joo xam ne bi mu xoolee guddaay bi xamul fu mu yem bi mu xoolee rëyaay bi bopp bi xamul fu mu toll benn ŋaam gi mu ngi ci suuf beneen ŋaam baa ngi kaw asamaan bëñ yi benn bu nekk bi mu nee nii daanaka ëpp na àdduna bi jaan joojoo ko topp mu daw jaan ji topp ko mu seen benn màgget daw di laaxatu ci màgget màgget bi ne ko man mënu ma la aar de dawal jaaral boor bi amaana nga fekk fa ñu la aar mu daw dégg ay yuuxu mu ne xaaral ma dem foofu mu daw ba yegg si fekk jahannama la ñooñu dañ leen di dugal mu dëpp def demi tour fekkaat góor gi toog mu bëgg a muuru ci ginnaawam góor gi ne ko man mënuma la sauver mun na ko jaaral ni nga dem jaaral ni mu daw mu gis benn montagne mu dégg fa ay baat bi mu jibee montagne bi rek ndeysaan ñu ubbi benn rideau mooy rideau yooyu di di glissé nga xam ne day nekk ci benn weñ boo nee nii rek mu topp weñ bi dem ndeysaan ñu ubbi rideau bi brrr rek mu gis doom bu jigéen bi taxaw doom ji ne jaan ji acca jaan ji daal di dëpp mu jël doom ji taf ko ci dënn bi doom ji ne ko alam yaani lillazina amanu an taxsha qulubuhum li zikrillahi wa ma nazala min alxaq xissa bu gudd la du yem fi waaye sunu borom nee na mbokk yi fa lawla is jaahum baasuna li tara woon nit ñi ba sama coono sama mbugal dikkee lan moo tara woon nit ñi yatadarra tatadarraun ñu toroxlu li li tax toroxlu ñu mooy walakin qasat qulubuhum seen xol yaa wow yemuñ ci xol yi wow waaye wa zayyana lahum seytaanu seytaane moo leen taaralal maa kaanu yaamaluuna lañ daan def moo tax tuubu ñu dellu ci yàlla du ñu tuub mukk da ngay gis koo xam ne ci musique la nekk ba xëy dee gars yi ñaanal suul ko ci musique ñaanal ko ci anniversaire bi jot ñu fàttali ko ci tëggal ko soirée du ngeen gis loolu du jeex nga gis koo xam ne ci football la dund ba dee ci ñu sang ko ci suul ko anniversaire bi jot ñu ñu organiser ko benn tournoi gisu leen ko nga gis koo xam ne ci làmb la nekk ci la judd ci la màgg ba dee ci ñu sang ko ci suul ko ci anniversaire bi jot ñu tëggal ko combat tudde ko drapeau mu ngo moo tax wa zayyana lahum sheytaanu ma kaanu yamaluun seytaane moo leen taarala lañ doon def parce que lii lañ doon dund ah bi leen yàlla tegee ay natt au lieu ñu tuub tuubuñu ndax ñaari mbir xol yee wow ba pare seytaane taarala leen li ñuy def du ñu tuub mukk mukk mukk mukk mukk mukk mukk borom bi nee na fa lamma nasuu ma zukkiru bihi ba ñu fàttee téere ba ma leen jox alxuraan ba ma leen wàcceel fàtte nañ alxuraanu yàlla hein fàtte nañ diine xol yi wow na seytaane taaral na leen seen jëf fàtte nañu borom bi tabaraka wa taala fàtte nañ diineem hein fatax na alayhim abwaaba kul yàlla nee na ma ubbi leen bépp bunt gis ngeen aaya bi aaya bu jara bàyyi xel la falamma nasu ma zukkiru bihi ba ñu fàttee sama téere bi lan leen doon waare lan lan ñu doon waare mooy alxuraan moom la ñu yàlla jox ba ñu ko fàttee yàlla mu ne fatax naa ma ubbi déggu leen aaye yi alayhim ci ñoom abwaaba kulli shay buntu yëpp laa ubbi loo xalaat rek yàlla nee na ubbi naa ko muy ay xéewal muy wala ngaan di dotteeku muy ñëw ci ñoom ñuy noos abwaaba kulli shay lépp la yàlla ubbi waa ji amoon ay oto oto yaa ngi versé waa ji amoon ay kër kër yëpp a ngi waa ji amoon ay doom doom yëpp tekki nañ waa ji lépp abwaaba kulli shay lépp la yàlla ubbi amatul benn problème bu nawet ay robinet la ñu ne robinet yëpp yàlla ubbi na leen mu ngi wala ngaan mbirum yàlla noonu la bu lay mbugal day bàyyi ba yëpp wala ngaan hmm? waaye cëy cëy bu la bettee ah allahu akbar mu ne fatax naa ubbi naa alayhim ci ñoom abwaaba kulli shay bunt yëpp hatta isa farihu ñu dem nag ba bég kontaan nag jaaxaan di galayaabe sàngara seeg jigéen jéeg musique yi wër leen ñuy tël di cëppi cëppi hatta isa farihu bima uutu ñu kontaan ci li nga xam ne jox naa leen ko yàlla mu ne axasnaahum baxtatan fa isa hum mublisuun allahu akbar sama yat wi daal di dikk mu ne axasnaahum ma jàpp leen baxtatan ci mbetteel allahu akbar dama leen a bett allahu akbar xoolal ñi dugg woon ci gaal di fo dugg ci gaal di tëgg soirée bato ana bato la joolaa ñi di naan sàngara ñi nekk ci cabine yi ku nekk wéet ak sa xale bu jigéen hein ba affaire yi neex hatta isa farihu bi ma utu yàlla mu ne axasnaahum baxtatan ma jàpp leen ci mbetteel këpp gaal gi allahu akbar fu ñu mujj fa isa hum mublisun ñëpp perte aisuun ñëpp découragé nga gis ku jàkkaarloog dee ah yëpp tëju allahu akbar nga gis ñu demoon soirée di ñëwaat oto bi këpp ñëpp dee ñi demoon sorti di ñëwaat lab ñëpp dee sunu borom du sunu morom ñaata xoola gars yi ne moon dañuy rey soayibu la ñu ne moon dañuy rey soayibu yeneen si ñu ne da ngeen di tàggoo da ngeen di wax ne da ngeen di tukki bu ngeen demee bu ngeen tàggoo dëkk bi ba ñépp gis leen ah bu ngeen demee ba guddi ngeen dugg ci benn pax ngeen toog ba mu guddi ngeen ñëw rey ko delluwaat su ngeen xëyee suba dañ naan yéen reyu leen ko ndax yéen bokk leen ci ndax yéen yéen da ngeen voyage yi tàggoon ngeen ci suba nit ñi gisoon nañ leen ngeen di dem waaye nekk da ngeen dem ba dëkk ba nëbbatu su guddee ngeen ñëw rey ko dellu nag loolu lañ fexe yàlla mu ne fa makaru makaran wa makarna makaran wahum la yashurun fexe nañ seen fexe man yàlla sottil naa sama programme bu yàgg yàlla bàyyi leen bañ dugg ci pax bi di xaar guddi jot yàlla daaneel pax bi seen kaw ñëpp dee allahu akbar yàlla mu ne fexe nañ seen fexe man fexe naa sama fexe man tamit wa makaru makaran wa makarna makaran waaye wahum la yashurun ñoom fexe nañ waaye yëguñu ne ndeysaan man yàlla sama bos pare na ñoom yëguñu ko yàlla bàyyi leen ba ñuy yenu seeni valise tàggoo dëkk bi ku nekk romb dañuy tukki dañuy dem sorti danañ fa def ñetti fan duñ ñëwaat yàlla bàyyi leen ba ñu dugg ci pax bi mu daaneel pax bi seen kaw ñëpp dee ñu ngi foofu ba léegi ñëwaguñu xaw ma kañ la ñuy ñëw de allahu akbar sunu borom du morom mbokk yi lii mu nuy wax nii war a dugg ci sunuy nopp ay nit a ngi fii dul jeex yàlla jox leen ay xéewal ñuy foo di cëppi cëppi lu nekk ñu nekk ci waaye keroog bi leen yàlla ne nuus kenn ci ñoom rëccut benn waaye boo xam ne daawul julli su gisee kuy julli mu ne looy julli ay julli ngeen ba dee amu leen dara yéen da ngeen di muuru nii da ngeen sonal nit ñi gaa yi ko ragalal yàlla yow si te nga góorgóorlu ay waa ji daal ku ko wax yàlla lay bañ a dégg ndeysaan benn bis benn waay ne ko yow ragal naa la de ragal naa sa mbir de yow boo moytuwul yàlla dina la rey beneen waay takk sa jabar mu ne kon ma génn ci armeel bi ñëw fekk waa ji fi mu toog ma nangam ndayam dem tëddaat waaye yow ne ah mu ne waaw waaw ndeysaan waa ji yàlla natt ko mu feebar ñu yóbbu ko hôpital principal faj ba sonn mënuñ ci dërëm ñu dugal ko avion yóbbu France sama xarit bi ma doon nettali xista bi nee na mosumaa jooy mu ne sama papa dee na sax jooy ma mu ne waaye avion bi dama wàcc dafa wàcc ñu wàcc waa ji ak puus puus ma ñëw di ko puus mu ne dama seen waa ji rek jooy ma jóge waa ji naan gars yi naan ko wala astafurlah astafurlah laay laay la la astafurlah ñaw tudd na yàlla de mu jigi de day tudd yàlla ne waxal laay laay ne laay laay la la jàppale ma ma julli waay waay jàppale ma ma julli nga gis ngeen yàlla yàlla du morom yàlla du moroom yàlla du moroom ku yeb yàlla da ngaa xamut yàlla xëjul ci nit waaw ndeysaan ak a bëri ñu yàlla ñu yàlla ñu yàlla jàpp ñu bëgg rëcc mënuñoo rëcc wa fataxnaa yàlla loola fataxnaa alayhim abwaaba kulli shay hatta iza farihu bima dégg nga bima uutu mu ne axasnaahum baxtatan ndeysaan ma bett leen rek tëj bunt yi fa iza hum mublisuun ñëpp découragé yàkkeeku ci yërmande yàlla mutahassiruun hasinuun ñëpp jàq allahu akbar nga romb ñu ne gars yi dañ doon course rek oto bi këpp ñëpp dee waaw ndeysaan mbër bi daane gars yi di ñëw di yuux di zibile oto bi këpp gars yi dee zibile ba mujj nekk dëj gis nga sunu borom allahu akbar yamu ci de mu ne fa quttia daabirul qawmi zalimin am nañ benn sëriñ tukulóor suy tafsi quran ba yeeg fii daan jattode allah jattima en jattoto moom loolu lay firee lii danaan saaga leen yàlla njëkk a saaga ñu saaga loolu lay firee fa quttia daabirul qawmi zalimin moom loolu lay wax xam nga fa quttia mooy lan yàlla nee na dog naa dog naa daabira xam nga wolof yi ñoo naan ak dubur wolof yi ñoo koy firee gat ah maa ngi jégglu waaye daabir mooy ginnaaw rek fa quttia daabirul qawmi zalimin nee na gaay ne ah qawmi lazina zalamu yàlla nee na dama dagg ginnaaw gaa ñi nga xam ne ay tooñkat lañ waaw Hmm, allahu akbar yàlla du moroom gis nga de tooñkat chaque jour yàlla nii rek la wax Abdul Aziz Touré moo naan noos nuus ah, ba ca des na xam ngeen ko noos nuus ah yaa ko wax de ndeysaan gis nga chaque jour li ñu doon wax sànq mooy mbir mi buy jeex chaque jour nañu sant yàlla da nga borom bi bi mu waxee programme bi ba mu jeex fu mu jeexal ak ginnaaw ñii mu ne walhamdulillahi rabbil alamin résultat bi fu mu mujj yëpp mooy ñëpp sant yàlla lañ def wala yàlla day rey suñu papa ba pare ñu tiim ci bàmmeel bi lu ñuy wax alhamdulilah yàlla d'accord naa di alhamdulilah d'accord naa yàlla rey sa yaay nga wax lan alhamdulilah d'accord naa di yàlla rey sa jabar nga wax lan alhamdulilah yàlla may la liggéey nga wax lan yàlla may la nga tukki nga wax lan yàlla may la alal nga wax lan yàlla may la kër nga wax lan kon mbir yëpp fu muy jeexe mooy walhamdulillahi rabbil alamin cant ñeel na borom mbindee fi rabbul alam kan mooy borom aduna al alamu kullu ma siwa allahi fa huwa aalamun lu dul yàlla rek mbindeef nga yàlla nag mooy borom adduna bi mooy borom mbindeef yi lu dul yàlla rek ci mbindeef yi nga bokk kullu ma siwa allah aalamun kon li mooy darsu tey ñoo ngi jéggulu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu